lu bees tax lu tax lu bees tax. lu bees la yóbbu fi koro famille bi dina neex si si moom dina koro famille bi dina neex si si moom dina neex xam nga nu muy demee neex wax xam nga nu muy demee seex ci kër gi ak awa góoru këram dëgg seen doom ci kër gi di jaay dafa wóor si bu mu gisee xale bi loolu doy na waar eh bu mu gisee xale xaritu askan la. ngalam xaritu as la. xaritu askan la. moom ngalam xaritu as la. bërëb xaritu baay taxaar. mati seen jigéen. yaay booy. jàppal ma benn eh, foofu lu fa eh, xam ne li ngeen def baaxul ay mag yi jëm ngeen man su ngeen gisee ma leen li ngeen war a xam ne du dara waaye tamit li ngeen def nii baaxul. ndax weeru koor bi ngeen nekk fii def lu ngeen xamul. réew mi metti baalu ñun yoo xam nañu weeru koor lañu ne mais ñun gone yu ndaw yuruñu dara ñu dara nga naan ma ñun bàyyi leen li ñu def lii dañuy am lii dañuy amee lu ñu am. réew mu méttee xoolal Baye Fall beeg potu bi a neex waaye yàlla sa ñaaw yàgg a neex. xaar xaar naan bu ma waxee yow naan ba pare. gis nga mag jëm du tee nga da ngay xalaat nit ñi lay romb gis nga loo nekk mag mag du tee nga am bu baax. éducation bu baax nit man Baye Fall laa man Baye Fall neexee naan bu neexee lekk di. su ma la desoo ceeb jën fii lekk moom jar kéemu ci ngay wax <laughs> taxawu ko muy defal boppam bu ndaw. laa ilaha illallah laa ilaha illallah tëll tëll booy booy booy li li li du yoon de. lii du yoon. eh Fane. waaye ndax man ma nekkee di fréquenté yéen yaa ngi damay mel ni yéen. ki mu ko toog. mais booy jaru kan la ñuy waxal ah. yow mi yéen xam ngeen la eh, eh, eh, ñu waxal booy ñu la ñu waxal.

waaye xam nga si sell nga ak ni nga jaaree si mbedd bi weeru koor gi li kaasoo ci waroo kaasoo xaw doo doon jullit mu ne kii kàlla. solo. li nga mos a yéen ko ci kër yi nii mu jugee yéen fu ma jugee wala école ñëw jaar ci mbedd yi jaar bi. ah waaw mais man solo ma ko moom moo ko solo. solo ko mbedd xool bëgguma ko de te wax di nga fay toll sa waxu mag yi bëgguma lii dégg nga soxna lii nii bëgguma ko sama biir kër bu nga jug nga dem sol gi ñëwaat. ok bëgguma yére toogal fi yow xoolal bëgguma yi bu ma foog am na lu ma la waxoon man tëluma yenn problème yi en même temps xale jigéen ni ñuy solo ngay ànd ñoom lii bu yàggee dalay yàq te lenn rek laa lay wax bis bir la yàlla jeyee ba nga dem ba beneen saa ngay dund leneen loo xam ne neexuma ñu may àgg si fii boobaa dama lay rey lu leer laa la jugal nga dem dugg ci nga nekk dama la dama la bàyyi waaye fa ngay mujjee man. chloroquine bi foofu dana neex